xamee faatu ah man ni foo xamee faatu wax ma wax ma moo gën lii ngay def eh ci mbedd ma boppan bopp kañ damañ xolal li may def man xam naa ko bu ndaysaan mboɗo wondi ɗo e mamma diade grand artiste du sénégal joni noon mamma jinmi ko mbiyana kam goldu kos kottu kos goldu kos kottu kos singom olefut singom ololuf singom olefut singom ololuf gerte hot gerte kot kak madad ni kenen kenen kamay daje yalla na may bëgg bu si ci leneen man Assalamualaikum. léegi dëkk bi léegi nee nañ ku wax benn baat si makki sàll dañ lay tëj te dinaa leen wax ni léegi man maa ngi nii man la Pape Matar ñu gën ma xam si maxu dëkk Kër Massar man si moom man maa ni yow Macky sàll yow da ngaa mun bay tëjee man maay wax lii si yow ma xool da man maa ni yow makki Sall eh xool ma fii man Pape Matar maa ko wax maa ni Macky Sall yow da baax da ngaa ko dangabak dangagore wasila presida dangabak dangagore Gudolfan yala nga am emanda eh, manda bare. Mm, mm, mm. Dele uma Senegal. Pobre de Senegal, ba, Senegal, ba. Baba de negra. ni deugal. Abo, la la no no ba. Jël ñu borom tuba mo ko. Wa pa ni sal De votre degré de mon attends je demande c'est bon là je sais pas c'est rue euh, il a c'est ça qu'il a écrit rue dama essaye pour voir écrit dama saf ou bien tu regardes rue euh, démb Comment guddi dama e m DEM ouais, B-E. dem Il n'y dama pas. Il y a pas non, c'est compliqué là. Désolée. Mais je ne sais pas comment. Lui, il m'a expliqué ça, c'est ça. Mais c'est quoi C'est hein? une maison. Hein. Ou bien, voilà, rue, euh, recette rue. Euh, rue, man. Cuuraay rek chaîne. Tu cuuraay gongo. ma. dëxinu Laube, wa. rue dëxinu Laube. rue dëxinu Laube. rue Dexinu Laobé. Tu connais pas Dekhinou Laobé Parce qu'il m'a donné beaucoup d'adresses. Adresse, il m'a donné beaucoup d'adresses. Ouais. Ou bien tu regardes Kérébassé. Kérébassé. Oui, Kérébassé. Non, il n'y a pas un... Même si c'était à côté, je l'aurais Mais ça m'a bakan de Fougoud, non Il n'y a pas, je suis désolée, il faudrait que vous me disiez... Euh, moi, même moi aussi, je ne comprends rien. 我要被 不给，啊，不哭不哭不给，不给。 waaw. fukki bukki bukki. fukki bukki fukki bukki. guddi bëccëg. non yow comprendre loo fukki bukki guddi fukki bukki bëccëg. number bi foi Coitado seu avô. Siakobanga. Pi. Siakobanga. Pi. Siakobanga, cara. Pi. Siakobanga. Pi. Siakobanga. Pi. Siakobanga. Pi. wax ça va. ah ça va grand. léegi dañ la bëggoon laaj xam nga Sénégal fi président lañ am. jabar ju première dame lañ koy owé léegi bu dee nag jigéen. moo jiite dëkk bi nan la owé oowee bi ji. penc. c'est facile yo pour le premier monsieur je pense. premier monsieur je pense.

jëkkëram na leen koy owee. jëkkëram quoi. na leen koy owee jëkkëru oui jëkkëru présidente bi na leen koy owee. bon premier mari premier mari premier mari. monsieur son excellence monsieur son excellence. ma xool ma xool premier homme premier homme. danu la laaj benn question bu ndaw bu fekkoon Sénégal présidente lañ yor. léegi présidente boobu jëkkëram na lañ koy owee. ah première dame ah première dame. première dame. nee <laughs> na premier <laughs> dëkk boo xamante ne ku jigéen moo ko jiite maanaam ku jigéen mooy présidente bi léegi nan la ñuy oowee jëkkëram jëkkëram nan lañ koy moom jëkkëram nan lañ koy oowee jëkkëram waaw ah, def ko premier avocat rek ko premier avocat rek ah, député lañ koy wooyee jëkkëram député koy wooyee député waaw <laughs> waaw jëkkëram si yoon laamu si laamu si mari mari mari mari oui mari moom <laughs> nee mari jàngal nga bay merci beaucoup waaw jaay waay ko ko jëkkëram nan lañ koy woowee lañ nan serignam serignam ah. ok est-ce que du avocat avocat comme yow am la comme yow am la comme yow am la merci dégg jàngal nga bañ yoon bi nañ taw persit la Liriti seni nafu sama dana la Te neneen leneen du lu yàgg kon li dëgg la